ci daje bi nga xam ne daje nañ ko fii tey ci barab bu tedd bii di daade al azhar ñu ko gën koo xam ci institut al azhar nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mourtada moo ko sosoon fii ci dëkk bi ci ndigal Cheikh Mouhamadou Lo euh, di nuyu ñëpp nag kenn ku ne ci santam xanaa dañuy gën a feddali sunu ya suñu yaakaar ak suñu woote ci parents fi nga xam ne tey ñoo teew fii. woote bi nag jigéen ñi dañ leen ci beral loxo bu baax a baax a baax ndax ku gis jotaay bi ni mu demee da nga xam ne jigéen ñi am na lu leen ñor ci diine waaye nag loolu nekkul hasard ndax Sénégal bu ñu xoolee ci wàllu histoire wala l'islam sax bu ñu xoolee ci wàllu histoire jigéen da cee bay waaru yaatoo yaatoo yaatu yaatu bu ñu wàccee fii ci Sénégal nag ñu gisaat fii ay soxna yoo xam ne dañoo bay ci l'islam bu baax a baax a baax te buñ ko waxee dañ ci mën a tudd ku mel ni maam Diarra Bousso dañ ko dañ ci mën a tudd ku mel ni maam Faa maam Faa Wadd ak soxna yi nga xam ne dañoo liggéey liggéeyal yàlla ba may leen lim leen may. kon tey bu ñu ñëwee fii tey mbooloo mi jigéen ëpp ci kon dañ xam ne lislaam moo baaxoo noonu kon ñu ngi gën a encouragé jigéen ñi di leen gën a soññ di leen gën a woo waaye nag ñu ngi woo tam suñu mbokki jàngalekat yi ci département bu Mbour yëpp euh, di jiital ci woote bi. sunu mudir sunu inspecteur sëñ Massamba Sow ak mbooleem jàngalekat yi nga xam ne ñoo boot ci gannaaw am ne ci département bi ñu ngi woote ñu ngi woo ñëpp ci suñu bés bi nga xam ne ñu ngi koy taxawal xam ne bésu mbégte la bésu sant yàlla la wante bésu fësal liggéey bi nga xam ne moom moom la góor yàlla gu mag doon defar muy Cheikh Mouhamadou Mourtada lim la woon liggéey bi sans borom moo ma ko sant ku ci jàpp doo torox àdduna doo torox alaxira kon yéene juñ nga xam ne nag Cheikh Mouhamadou Mourtada da koo waxoon jëmee ko ci daara yi te mu doon lu wér ndax kenn xamu koon ci wax ay caaxaan kenn xamu ko doon ci ci wax waxee ba kanam loolu yéene jooju nag wala tuyaaba jooju moom la yéene mbooleem koo xam ne yaa ngi ci campement nge ko moo xam nga am ndongo ci daara ji moo xam amuloo ndongo ci daara ji ñu ngi woo ñëpp di ubbil bunti ñëpp di invité ñëpp ñu ñëw ànd ak ñun bés bi luñ ci am ci euh, tuyaaba sa borom boole ñu ko ñun ñëpp bés bi nag comme niñ ko waxee am na ay kilifa diine yoo xam ne ñoom lañ ko dara jaale bu dee fii ci nga koox ñu ngi ko dara jaale imaam mm, Alhaji Babou Sarr muy imaamu ratib bi nga xam ne daam daf naa waa Nkàmma ñëpp xam nañ ko ci wàllu diine xam nañ ko ci wàllu xam-xam euh, mu taxaw jiite jumaa ji ay ati ati at moom la ñu dara jaale bés fii ci Kàmma ngi ko su ko defee nag ñu ci woo ñëpp murid tijaan xaadir laayen bayuñ kenn ndax ma Cheikh Mamadou Mourtada day lislaam la doon liggéey liggéeyal toon tarixa daana def ne bu ñëwee sax ci daara su fekkee nga taf fa fotoom daa nga bind fa lu ñu autorum dañ naa la dindil nga xam lii de moom mu ko sans euh, l'islam moo ko moom kon moom lislaam moo ko ñoroon lislaam la doon doxal kon baywut murit baywut xaadir baywut tiijaan baywut laay ndax école bi ñëpp ngi fi kon ñëpp la ñuy talal loxo nga xam ne liggéey bi daal liggéey bi diina la ku ci jàpp jàppal jàpp jàppal sa bopp ku ci bàyyi itam lu am solo kon loolu mooy euh, conclusion bi xam naa sëñ Baara moom dañ koy beral cant bu baax comme ni ko Ibrahima waxee ndax wax dëgg yàlla lii wolof wax naan lu dëgg lu yàgg dëgg la ndax wax di yalla yag nañu taxaw bes bu mel nii mu déplacé ak staffam ñew ah, yalla na yalla jëme kanam man média bi yalla dem ba nek télévision bu mag bo xamni ni euh ah, wangé ko gëp dañ koy sago ndax sagum Ngekoox la wax di yalla tour yobbu na turu Ngekoox foo fo xamni ni ah, su doontoon mom mi Ngekoox ko man na fa bañ dem événement ba am ci digg ci biir dëkk bi na événement diine dañ ci bay walam yaatale ko tasaare ko ba ñëpp xam ko loolu nag ku koy def dañ koy ñaanal saa borom yokku ko saa borom jàppale ko moo staff bi nga xam ne ñoom la àndat ba lépp loo xam ne nisar nañ ko ci jëmale nga ko kanam ñu ñu mu am ci lu ko mën a jotam euh, monsieur le rek moom wax nañ ko léegi moom partenaire école bi la partenaire école bi la ndax wax dëgg yàlla al azar moom foo foo foo foo ko fëggee guddi sax boo ne al azar mu ne ah sama daara la kon nag bi bésam la dëkk bi lépp lu fi def ci wàllu éducation sëñ Ibrahima wax na ko léegi moom lañ ko defal ndax ku jir ci ku jir ab dëkk soo sañoon yar teggin jàmm moo fay am te li dox jàmm nag ci am réew mooy islam baatu islam bu ko tekkee mooy asalaama mooy jàmm kon jàmm jooju nga xam ne nag moom la daara yi dox di lawal ci dëkk bi mom lañ koy doxal ndax ku jitt ab dëkk bo sañam mu mu dal mu kalmu njaboot ga yaru loolu moy moo lay may ndam moo lay may succès kon nak ñu ngi koy wo ci bés bi do woo mboolem staffam ñi nga xam ne ñom la andat ci liggéey bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa rahmatullahi taala wa euh kon sunu gan yi nga xam ni nii ñoo fi ñëw ñu ngi leen di ziar bu baax di leen dalal ci jamm di rafetlu tamit sen taxaway ginnaaw kàddu yi nga xam ne nii rot na fi ci mboolem ñi nga xam ne ñoo fi daje te sababu bés bi moo doon journée culturelle bi nga xam ne ni moom lañ doon waajal tey ñu ñëwaat dajewaat ci école bi ci sunu ñaareelu daje ak parent d'élèves yi ginnaaw bi njëkkee def daje bi nga xam ne ni moom la euh, almudir directeur bi ak jàngale katam ak ñi nga xam nyom ni ñom ñoo ngank biro parent d'élève bi tay doona sunu ñaarelu dajé bo xam sé ni dafa jëm ci mbolam parent d'élève yi nga xam ni ñom la seen dom doom di jànge ci daara ji sababu dajé bi nak tay comme niñ ko doon défé rek wajal suñu sunu cinquième édition wu journée culturelle bi nga xam ni Institut Lazar dina koy amal chaque année ak xalé yi ak wayjuru ndonga yi tay nak ñu fi daje and ko sunu media bi nga xamné ni wax deug yalla muy couvrir tous les informations qu'il faut à travers le département de taking euh té ki nga xamné moko jité muy euh Mohamed Lamine Barassar ak staffam diko and ak wa Insel Azar chaque année comme niñ koy défé di lu taxawayam bu ma sha Allah ndax mom parent d'élève la ci dara ji sa bobu dajem nak ibrahim Sall nga xamné moy directeur bi teunk na ci lu bare moy yeen way juri na ngeen xamné daara ji dafa toll foo xam see ni faw bés yu mel nii ñu koy di ko di ko di di ko di ko gën a yaatal ndax l'islam communication daa bokk ci dafa bokk ci principe yi nga xam ne nii l'islam da ko da koo jël comme ngànnaay jëfandikoo ko ba tax li yàlla buggoon ci ay yonentam muy tasaara message bi yegg si fii moo waral tey daje bii ñu daje fii ànd kook yenn média yi ndax lu baax saa su ne dañ nga ko war a génne comme ni ko waxe lu baax saa su ne dañ ko war a génne tey yoon def sa saa noon la ko waxee balihu ni walaw aaya kon ñun ñi ñëpp kenn ku ci nekk war ngaa jël benn message tasaareel ko ko ngir mën a lislaam gën a man a yaatu te loolu moo doon mission Cheikh Mouhamadou Mourtada moo tax mu ne sëriñ bi bind ci ci wasiyatu raboo ni yaa waasan wasanta di bi Mourtada kon Cheikh Mouhamadou Mourtada moom nga xam ne liggéeyu lislaam bi mu ngi ko doon woote ñun ñi ñëpp aju ci gannaaw moom mu doon al mujahidul akbar ba mu fi demee jóge fi après sa disparition sëñ Maam Mor jë relève bi ànd koog ñi nga xam ne ñoo njabootu Azhar moo waral tey ñun ñii tamit loolee ñu ciy war ñu ciy bay sunu waal ci fii ci nga xam ne mooy goxu campement Ngeko ak ci mantixa bi nga xam ne mooy mantixa Mbour eh, te ki yi nga xam ne mooy Ibrahima Sall jiite ko ànd koog ay bokki katam kon su ko defee yéen waajur ñu ngi leen di woo ci bis bii nga xam ne nii moom la ñuy waajal muy le 20 di ci sàkku seen teewaay ñu bëgg ngeen teel a ñëw te waajal xale yi ah ndax nit saa su defee ay exposition bëgg na woy juri teewe loolu ba ñu xam li nga xam ne nii moom lañ doon def seeni doom kon su ko defee comme noonu ñu ko waxee rek bëgg nañ eh, teg programme yoo xam ne nii lu jëm ci niñ ko doon defee chaque année buñ ci yegsee à partir de huit heures ba onze heures xale yi dinañ def lu mel ne genre défi ñu doon def ànd koog waa Ngeko TV suñ ci jógee dinañ ñëw ci fii ci école bi fi lañ koy defee comme nañ ko doon defee su ko defee yeneen programme yi ñu mën koy wéyal kon su ko defee yéen ñi nga xam ne nag euh, seen xale yi fii la ñuy jàngee kenn ku ci nekk bu dee ku góor la amna xalé yo yoo xam seen ñoo ñoo yor seen walu hôtesse yi ngeen teel gisante ak ñoom budé jigen ñi amna ci xalé jigen ñi ñoo xam seen ñoom ñoo yor seen walu hôtesse yi budé ñi nga xam ni ñoy préscolaire bi Sayda Anta mom mo yor seen walu hôtesse su ko défé ngeen teel a xalé yi ñu ñew euh, euh mën leen a defal fête bo xam seen ni comme ni ko doon défé chaque année rek ngir djublu ci xalé yi jox leen encouragement jox leen encouragement ñu xam ni ci réew mi lañ bokk comme ni ko Ibrahima Sall waxé parce que dañoo bokk ci bir réew mi parce que bu ñuy wax budget bi budget Sénégal buñ ci doon wax duñ naan ñii ñoo bokk ak ñu ci bokk budget national lañ wax xale yi dañoo bokk ci monde éducation ndax ki nga xam ne ne da tabaxal jàngal la yaral la yaakaar naa ne ñooñu ku leen gën a participer ci monde éducation amul te incha allah yaakaar naa ne euh, bu ñëpp doon def ni ñoom comme ni ko euh, ki waxee léegi station du fi toj car du fi toj kenn du fi taxaw di saaga ay mag ci réew mi kon yaakaar naa ne loolu moom la wajuru ne bëgg ci ci ci doomam. muy ku jàngale ak defare te loolu rek moo tax a jóg in Saint-Lazare kon ñu leen ci woo di ci woo toutes les autorités religieuses comme les autorités administratives comme ñi nga xam ne ni ñoom ñooy kilifa aada ak ñi nga xam ne ni ñoo fi nekkal euh, euh, euh, taxaw taxaw fi taxawaayu Eh, eh, tasaare lislaam ak tasaare diine ak ñi nga xam ne nii ñoo fi taxawal eh, nekk ci wàllu muy kilifa yenn aada yi ñun ñoom ñëpp ñu leen woo ci taxawaay ci bis bi ci woo monsieur le maire bi nga xam ne nii mooy le premier magistrat de notre commune de Ngekoox ndax tey lii bu ñu koy def moom tey moom lañ koy defal kon moom message bi daa war a yegg si ci moom mu xam ne daara yi lii ñuy def nii moom lañ koy defal parce que da ab dëkk boo ko jiitee nga yor ko nit ñi di la jàppale ci wàllu tabax yaakaar naa ne yow loolu kenn warul ci jiitu kon yow monsieur le maire xam nañ sa taxawaay bi nga doon def ci wàllu euh, euh, ci wàllu jàng ak jàngale ci ci ci dëkk bi rawatina ne Salasar kon na nga daa def ñu la ciy woo di ko di ko jàllale ci ñi nga xam ne ni am na fi ay représentant yoo xam seen ñoo ngi fi ku mel ni baara mi ab représentant am la fi donte ni muy doon doon parent d'élève kon moom tamit ñu ngi koy woo ci bis bi mu fa mu daan jaar xam na ko na fa jaaraat kon su ko defee man damay tënk kàddu yi rek di bàyyi Euh, Ibrahima Sall moom mu def ci conclusion su ko defee après sëñ daam moom tamit def ci ay ñaan su ko defee ñu mën a yëkkati jataay bi ba yeneen daje ndax incha allah rabi euh, dinañ amaat yeneen daje yoo xam seen ni ab plateau boo xam seen ni émission lay doon incha allah dina dem Ngeekoox TV mu dalal ko. ab plateau boo xam see ni émission lay def boo xam see ni lu jëm ci wàllu école bi ak lu jëm ci wàllu doxalinu école bi ak lu jëm ci wàllu bis bi nga xam ne ni moom la ñu waajee muy journée culturelle cinquième édition bi 2023 bi loolu incha rabbi dinañ koo def ak Ndekoox TV ci semaine bii di ñëw kon su ko defee damay daaneel foofu samay kàddu di ko jégal di jégalu ci kàddu yi nga xam ni wa taala wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi ngi leen di nuyu di leen sant di rafetlu teewaay bi di soññee rek di woowaa dëkk bi ci sunu bis bi nga xamni ne daan nañ ko def defoon nañ ko daaw def ko ay at yu bari ñu ngi koy waajalaat ren inshallah la vin bi ñu jëm di ci woo dëkk bi yépp nak di ci wo képp ko xamanteni rek ya ngi wax asadu la ilaha illallah wa asadu anna muhammad rasulullah di soññ sama mbokk jigen ni seen taxaway soxla nañ ko fi lool nak di leen ñaan nak ngeen xey rek téla ñew sañse ba jek def na ngeen daan def taral bés bi ndax xale bu gesso gis yaayam rek day sawar ñoo ngi wo sunu monsieur le maire comme niko oustaz saxa waxe ndax xam nañ fa mu daan jaar ak ñun donc koy ñaan mu jaar fa ak ñun te yok ko bu baaxa baaxa baaxa baax <laughs> di ñaa di wo malik Gueye di wo ñi nga xani fi nekkal askan yi yep di wo tamit nitu diine yi ñoo ngi wo oustad Sidi ndjay di wo Imam sar di wo kep ko xam nitu di na nga fi ci campement ngi xoof di wo tamit sunu goor ñi ñepp nañu téla ñew japp ci bis bi ndax alquranu karim kuko def sa dom ba adam bi jeex war nga mëna ñew taxaw ko ñi ngi sant ñepp nak di leen assalamu alaykum wa rahmatullah taala wa barakatuh آيات الله بمعهد أزهر قوموا وعوها ذا النشيد بدار أزهر نشيد فاق مذمارا ونايا ينوه من مزايا دار أزهر فيا أم المعاهد أجمعين ومن هل من أراد العلم قوم يريدون ثقافة دار أزهر فأنت الحصن والمنجى لجيل تحداهم جيوش الظالمين سراج العلم والآداب أظهر فأنت النور في ليل بهيم ومن جلخا votre chaîne Ngekokh TV. Ngekokh TV, c'est une chaîne télémédia bilingue Pour vos reportages, des émissions couverture médiatique vos publicités Gecor TV indil Nalen BES, avec une équipe pétrie de talents médiatiques Gecor TV un autre élan de la médiation sénégalaise partagez et abonnez sur votre chaîne Gecor TV